jërëjëf euh, Abdoulaye Mamadou gisee yow yaa jiite euh, euh, MCSS Fulla ak Fayda léegi yow gis nañ ne coalition yu bari taxaw na mais dafa am lu ñu xaw a jaaxal tuuti yow yow ak sa waa parti da ngeen a demoon ànd ji ak Bougane Gueye Dany coalition Bougane Gueye Dany léegi bi ngeen àndee ak coalition Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany moom tim dem ci coalition Yewwi Askan Wi. dal di wax ne ñim àndal ci coalition ñoo ko jox ndigal. wala ñoo ko sant mu ñëw bokk ci coalition Yewwi Askan Wi. Hmm. léegi Bougane bi mu ñëwee ci coalition Yewwi Askan Wi. Hmm. ñu gis ne dafa ñëw di contester couleur parti couleur euh, coalition bi ak logo bi ñu teg ci ay fan ndax dafa si ñëwoon sous réserve beneen réunion ba sa topp. Euh, coalition Yewwi Askan Wi na ko léegi signature euh, signé sous réserve amul da man mën nangu liñ fi charte yi wala nga génn ñu gis ne Bougane dafa génn ci coalition Yewwi Askan Wi te yow yéen a fa àndoon dem yow nga des ci Yewwi Askan Wi ba tey lan nga ñu mën a expliquer ci scénario boobu. waa scénario dafa simple parce que man euh, Bougane daf ma woolu dañ ma woolu ne ma dafa am coalition bu ñuy teg te dañoo bëggoon nga ñëw bokku si. bi ma ñëwee euh, man joxuñu ma charte joxuñu ma këyit joxuñu ma dara. ci Bougane waaw Bougane coalition gëm sa bopp man foofu sax bi ma ñëwee toog ak moom ci laa xam ne coalition bi gëm sa bopp la tudd bon bi ma wooyee nag par principe dama ne su dee coalition bu opposé wu régime Macky Sall rek bokk naa maanaam man dama naan naar kenn du ko ci guuxum soow parce que nag jili dama yàgg bokk coalition yoo xam ne. président Wade coalition day ñëw jël feuille blanche bind ay tur jël couleur partem def bind coalition soppi te kenn du wax déedéet te ay Decroix nga fa ay Mbaye Diaga nga fa ñëpp a nga fa ay ngande ñoo fa newoon mais xam nga lu tax ñu def loolu parce que dañuy xam ni il faut que train bi vague train bi am bopp parce que jii lii bu ñu naxante bu ñu nekkee fii di discuter ci couleur ak goût mais duñ fi mës a jógee élection 23 janvier fii la ñuy fekk ñu discuter ci logo wala ci turu coalition man gëwuma loolu xam nga lu ma gëm euh, maanaam système de jeu bi ñuy footballé man dama gëm ne Barça la wala Real Madrid la wala Manchester United mais couleur maillot bi non man loolu intéressé wu ma xam nga man couleur ma intéressé couleuru Sénégal bi ma bu Bougane woowee ma ñëw ma d' accord ci coalition Bougane ànd ak moom xam nga lu tax ma d' accord parce que xam naa ne du coalition définitive c' est une coalition provisoire parce que dañu war a jëm ci beneen coalition bu gën a mag mais beneen coalition bi gën a mag bi nag moom Bougane bi mu annoncé ne ñooñu woo nañu mooy yeewi askan bi moment bi ñu koy woo man moment boobu la ma Khalifa woo man maa ngi toog yore sama téléphone Khalifa Sall yónnee ma message ne ma président gisee tu es pour venir signer mais comme que buggaan ci ñun ñun ñoo ànd ma bàyyi ko mu dem mais bi mu demee def sous réserve ma ne man sama parti du def sous réserve dañoo àndoo woon ci àndoo woon ci sous réserve bi. no man ànduma ci mais parce que c'est pas stratégique cest que soit da ngay liggéeyal Macky soit da nga bëgg diviser l'opposition boo diviser l'opposition c'est parce que yaa ngi liggéeyal Macky te man sama démarche man du ma doxee noonu parce que man man en politique duma def demi-mesure. damay dem rek wala ma bañ a dem maanaam. maanaam maanaam yow da ngaa gis ne sooy dox dox jéego yoo xam ne da ngay xaajale opposition bi entre guillemets liggéeyal Macky lay teg. wala wala avantage bi ci Macky lay lay ëppee. mais dama ne c'est comme position Wade en deux mille euh, dix-neuf man je suis wadiste vision am laa gëm mais deux mille dix-neuf Ablaye Wade mu réélire Macky. moo ko liggéeyal moo ko liggéeyal Sonko était le mieux placé en deux mille dix-neuf pour jël réew mi. su gaa yi àndoon ak Sonko gaa yi jël réew mi. PDS dañoo téye Karim yow Sonko xale la comme Karim il a le même avenir que Karim que ñun. Ablaye Wade peut-être moom euh, jamonoom jeex na tey jii su taxawoon tele ne képp ku yaakaar man Ablaye Wade ak PDS votel Ousmane Sonko. kon Sonko jël mais Sonko dina jël réew mi kon tey situation bi ñu nekk Karim dootu ko dund. Mhm. day jóge doo waa ñibbisi. Khalifa Khalifa te bu boobaa aussi mënoon nekk gouvernement sax régime de régime de transition mooy lan. mooy Sonko signé kayit ne su ma jëlee réew mi damay dawal un an organiser élection bon mais nag xam nga boo dëkkee nekk calcul politique politicienne da nga naan xëy na bu jëlee réew mi su jëlee réew mi du nangoo dem du nangoo alors que loolu ah, léegi euh, Abdoulaye Mamadou Guissé ñu revenir ñu revenir ci coalition bi no waaw coalition bi laay wàcc lay daaneel xam nga aussi waxtaanu politique il faut que souvent ngay génn tuuti pour que auditeurs yi di am aussi parce que boo defee tout droit rek auditeurs yenn saa sax dañuy maar ci li ngay wax. moo tax yenn saa yi may génn dugaat. dugaat bi nag mooy coalition Bougane moom bi ma ñëwee def na coalition def drapeau am couleur am def si sax photo xam nga yeewi askan bi amul photo Sonko amul photo Khalifa Sall amul photo pure. Mhm. coalition boobu mhm. couleur la vert rouge ak weex. Mhm. blanc man sama parti man Ablaye Guissé ak picc. man sama parti couleur yooyu couleur yooyu net mooy sama couleur parti. ak picc bi man ab laay Guissé léegi man ñëw ci coalition boobu. ma gis ne coalition bi texte yi charte bi baax na li tax a jóg coalition bi rek mooy jëlee fi Macky. mooy yeewi askan wi askan bi ci lépp nag. te ma gis ne moom méngoo nag sama sama vision sama gis-gis. ma ne ko Bougane coalition bi bi mu baax na te yow Bougane li muy reproché yeewi askan bi moo nekk ci moom. waaw te moom li muy reproché. Ah, ah. yeewi askan bi couleur ak yooyu moom lu raw loolu la def parce que moom dafa def fotoom. ci ak couleur am ak logoom ak turu mouvement <laughs> ah. <laughs> léegi nag léegi nag man xam nga man aussi. Ah. man man ful ak fayda lañ ma xamee quoi. Ah. man dama boole dara ak wax. Euh, man damay jëf. léegi yow léegi yow gis bi nga ñëwee ci Yewwi Askan Wi. waaw euh, amoo problème mu couleur mais gis nga charte yi texte yi. Euh, moo tax yow nga resté foofu. non non seulement dama resté mais débat couleur ak logo bi mu persister man maa jël parole ma ne leen. que lii c'est pas un débat ay couleur ay ay ay ay ay ay ay tour c'est pas un débat le débat bu bi gën a am solo mooy fii yaa ngeeg ñetti ñetti kàngam yoo xam ne noo wax politique politique te boole wu leen ci mm-hmm. te tey Sonko c'est le numéro trois moo jël troisième présidentielle il faut regarder la vérité des chiffres en face mm-hmm. mais vérité des chiffres da koy xool mm-hmm. su dee xooloo ko rek da tëlli tëlli Sonko moo jël troisième PUR moo jël quatrième coalition bi bi ma bi ma dugg nii Sonko moo jël troisième PUR jël quatrième xalifa Sall sur 19 commune Dakar 18 communes yëpp Khalifa Sall la ko gagné léegi kan moo gën a légitime ñetti ñooñu pour que ñu décider. pour que ñu jël initiative. non non pour ñu jël initiative. c'est-à-dire que Sonko xalifa ak PUR dañoo jël initiative teg coalition. te seen seen li ñu ko jëlee li ñu jëlee initiative boobu man pour à mon avis c'est très légitime. dafa légitime ndax man dund naa ko Ablaye Wade Ablaye Wade dañ doon wax mooy fête kii de l'opposition mooy jël initiative gars yi di topp li ma man lu ma dul nangu mooy ngay jël initiative nga ne kenn du wax wala kenn du yëngatu donc man parce que Ablaye Wade da doon wax sax ma ne ànduma ci donc te j'ai vu que en toute démocratie que te si biir instance yi mais démocratie femme yeewu askan bi waaw yeewu askan bi mais Sonko da dul wax sax xalifa du wax lu bëri mais gars yi ñoo discuter échanger mm-hmm. waaw léegi Bougane man su bañee ñëw fii nee na fii couleur bee ko neexul couleur dañ ko imposer couleur ak logo te man mu imposer ma sax image ci biir coalition bi def photoom ci kaw def ci loxo bi logo tuddee ko gëm sa bopp mouvement am waaye léegi ma laaj la loolu man su ma restee foofu kon man politiquement sama parcours politique naa ko xoolaat léegi léegi euh, Bougane nee na <coughs> euh, coalition Yewwi Askan Wi la fa gis daal euh, mën nañu ko méngale sax wàllum dictature dem na ba naan euh, ay wàllum dëmmante moo fam wàllum lekkante moo fa am kàddu yu buggaan yooyu ndax kàddu la yoo xam ne euh, bàyyi ngeen ko xel. non man man man xam nga politique euh, man ay xasante ci politique man pour man maanaam dafa mel ni un coup d'épée dans l'eau c'est-à-dire que man pour man amul solo xam nga Abdoulaye Wade dafa ma mës a wax lu garaaw parce que dafa ma ñëw ne ma gisee ma ne ah, mu ne ma politique de soo bañee ñu xas la wala saaga la rek pour politique. mu ne ma te tamit lu ne di dañ la ko jiiñ mu ne ma man maa ngi di jiiñ nañ ma fi ay arme libyen nee nañ ma dañoo fekk sama oto ay arme libyen c'est comme tey ce qui se passe avec Sonko cest à que boo nekkee régime boo nekkee un opposant mais tu dois t'attendre à tout man man je pense que tey sama mission fondamentale mooy fexe ba Ousmane Sonko Khalifa Sall am courage maanaam Ousmane Sonko c'est du sang un peuple ne doit pas se vider de son sang neuf tey nga éliminer ko même loo ko contre contre politiquement waroo waroo football luy éliminer Sonko sur l'échiquier politique encore moins Khalifa Sall parce que Khalifa Sall euh, bien vrai que reproché nañ koy affaire mais Khalifa c'est un pur produit de Senghor c'est un pur produit du Parti socialiste te aussi Khalifa dafa nekk si jamonoom. xalifa tollul ay troisième âge wala quatrième âge. Dakar ko capital Dakar bi wóolu ko. léegi def euh, ko maire ko député. waaw léegi nag ñun ñi nga xam ne ay acteur politiques lañu parce que euh, jili jili bal bi day changé bul bi day tourné tey Sonko mooy leader de l' opposition mais suba mun a nekk lay Gisee. Mm-hmm. am déet. Mm-hmm. ñun tey coalition bii ñu defar mais dañ koy dem ba 2024 mais Sonko bi mu jëlee parole xam nga lu mu wax dafa ne coalition bi ñooy ànd législatif ànd présidentiel bu ñu demee présidentiel fii si ñun nii ñëpp. ku bëgg a présenté wu présidentiel nga dem ku dem deuxième ku dem premier tour ku génn deuxième tour ñëpp ànd ak yow kon kooku démocrate la mais tey tey bu doon président Wade la du la wax loolu. danaan la Karim mooy candidat bu newul candidat kenn du nekk candidat. mais mais yow gis nga ne coalition Yewwi Askan Wi Sonko ngar daa joowoo ko xalifa ngar daa joowoo ko jàpp nga ne daal démocratie am na foofu. non am na démocratie démocratie gars yi dañuy waxtaan. te kenn moomul kenn. mais mais est tamit jàpp nga ne coalition la boo xam ne mën naa jàmmaarloo ak Benno Bokk Yaakaar gagné ay grandes villes ci élection locale yi. non dinaa la wax leen euh, man li ma gis ci coalition Yewwi Askan bi mosuma ko gis sax ci coalition te dem def naa coalition yu bëri nag ànd naa ak Ablaye Wade euh, def naa coalition ay kangam bokk ak ñoom mais gis naa ne euh, coalition bii ñu nekk nii c'est la coalition de l'avenir. c'est la coalition qui fera partir Macky Sall man maa la wax lii. Ah bii. Hmm. bii mooy mooy tax Macky génn palais bi dem bar bal du tàkk sagar du xeeñ bii coalition. yeewi askan bi yeewi askan bi yeewi askan bi dafa dafa méngoog turam. dafa méngoog turam te dafa ñëw waxtu bi nga xam ne te seetlu lu baax li ma la wax 2000 euh, 2012 sénégalais yi dañu am lu ñu aspiré. mille dañu aspiré woon soppi mille 2012 ñu aspiré yaakaar ñu ne Sénégal yi bëgg beneen yaakaar bu bees ñu def benn bokk yaakaar Sénégal yëpp aspiré ci parce que Sénégal moment boobu dañoo bëggoon ñu ñëpp ñu bennoo bokk benn yaakaar mais malheureusement ki ñu yaakaaroon dafa tas yaakaaru jaam yi mais tey yeewi askan bi moom la Sénégal yi aspiré Sénégalais yi euh, jiili soo demee Sénégalais bu nekk Italie moom ci boppam boo ko laajee di lay wax ne moom bien que mu ngi Italie mais dañ ko tënk ndax dañoo tënk réew gars yi lekkuñu naanuñu jeunesse baa ngi jël bateau yi di dem di jël di mbë di mbëkk gaal yi di dee ji li chaque jour nga gis inondation même chose su su tawee nga gis Pikine banlieue bi région yi nit ñi di dee partout xoolal tey jii ñu ngi yokku denrées alimentaire yi yokku lépp mais ji li réew bu demee ba nga xam ne ay fukki nit ñoo ko yore ñooy lekk lu baax ñooy tëdd fu nooy nooy ñoom ñoo am wér-gu-yaram ñoom ñooy jàngi école fukki nit yooyu ñoom ak seen njaboot ñoo koy def kon xam ne réew mi fi mu jëm baaxul <clears throat> seulement la seul problème ñun Sénégal dañu wax dëkku diine lañu mais man man man man loolu dafa des parce que dëkku diine dañu war a am yërmande nitu diine dañu war a si askan bi mais dama gis ne loolu amul askan bi li muy sonn te jiile dina am loo xam ne bu amee foofu la Sénégal di changé pour définitivement parce que tey Afghanistan li fa xew Afghanistan taliban yi ñëw jël réew mi dàq américains yi ci biti mais mun na nekk fii mun na nekk fii te du affaire terrorisme parce que nit ñi dañu décider te nit ñi bu ñu décider du diine du religion du chef religieux du du. du armée du armée police bu leen mun a téye. te tey te da ngaa gis ne Sénégalais dañu décidé. non les Sénégalais pour changement. mais pour changement radical c'est-à-dire que 2014 2024 mais 2024 Macky day dem man maa la wax li barki Seydina Mohamed day dem maa ko wax fii. Macky day dem ci nii wala ci nee loolu kay maa la ko wax. mais est-ce que gis nga ne tey euh, am nañ benn euh, kii ci seen coalition bi euh, tey ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yeewi askan wi. ndax jàpp nga ne grande ville yi man ngeen koo gagné ndax ñenn ñi jàpp nañ ne. Khalifa Sall muy Sonko muy sëñ Mansour Sy Djamil sàng sa xam naa fàtte nga ko ak PUR euh, am nañu ndëgër laay Dakar am nañu ko Thiès am nañu ko euh, Saint-Louis te foofu tamit euh, kii ma nga fa Cheikh Bamba Dieng ma nga fa. Aïda Mbodj ma nga fa Girassi mu ngi Girassi waaw waaw yaa ngi pikin noor mais est-ce que maa ngi Pikine rek. waaw yaa ngi Pikine léegi est <laughs> mais coalition boobu noonu kàngam yooyu noonu. sincèrement gisee. est-ce que mën nañoo jàmmarloo ak benn Bokk Yaakaar ak doole bee xaalisu bi boobu benn moyens yi Benno Bokk Yaakaar am. mais est-ce que xam nga lu bëri analyse bu bëri ñu bëri defuñu ko xëy na courage bi pur am Pastef am ko taxaw Sénégal am ko yeneen yenn ñeneen ñi amuñu courage boobu et d'ailleurs j'ai salué ce courage xam nga lu tax parce que ñoom dañoo teel a jël dañoo jéem a dañoo teel a songu problème bi mooy nañu jëm teg coalition mais tey. bennoo ba léegi tegaguñu coalition de gis nga problème bi ngay dégg tey ci opposition bi problème mu coalition yi mais may naa la it feeg deux semaines bennoo bokk yaakaar day tas jii li te tas na ba pare. mais ñoom sax dañoo am bëri problème ñoo. non ñoom dama ne ñoom tas nañ ba pare xam nga lan la c'est-à-dire que dafa mel ni euh, li ñu naan garab garab boo xam ne ci suuf ren yi dafa dañ dafa lekk ba jeex tàkk xam nga garab boobu boo ko laalee mu daanu. noonu la benn bokk yaakaar bool benn bokk yaakaar actuellement kenn wu fa ah. ku nekk ngi nas sa côté ku nekk ngi dem maanaam euh, nguur gu tas la daj yi tasaaroo fu mu nekk nii dama ne la boo ñoom bu ñu defee investiture day résumé Macky 2024 boobu moytu sax Macky du dem de 2024 le président Macky Sall. après ces investitures de Benno. Mhm. soo moytu régime Macky Sall bi du dem ba 2024 man maa la ko wax. d'accord mais gis nañ tamit euh, seen. parce que ñu bëri si Benno dinañ ñëw fekk si yeewu askan bi. d'accord mais est-ce que jàpp nga ne. Euh, euh, ñi nga xam ne ñooy song coalition yi ku si mel ni aussi Thierno Bocoum gis nañ mu attaqué euh, yi coalition yi song yooyu lan moo ci sa xalaat. non man je pense que politiquement c'est c'est ay ku c'est maanaam. c'est normal Thierno non c'est pas normal Thierno Bocoum suy attaqué coalition yi ku nekk chaque chacun est libre. nit ku nekk am nga liberté def sa coalition seulement diffusion bi division bi day tax day affaiblir l'opposition mais nag cela n'empêche pas que changement am parce que 2000 am na opposition bi amoon na ay bloc ay coalition ñoo dem élection mille te teewul le régime de de Diouf dafa daanu 2012 ay coalition la te coalition yi am nañ trois coalition xaw ma quatre te teewul Ablaye Wade dafa wàcc donc diversité bi du du munul du du lenn lu extraordinaire mais quand même on aurait souhaité que ñu nekk benn mais nekk benn bi nag dafa difficile parce que idéologie yaa ngi fii égo euh, yaa ngi fii parce que jii li tey naan ay Sonko du ma jiite Ablaye gisee naan Khalifa Sall du ma jiite loolu la ñu war a teg de côté man bi ma demee coalition bi dama ne leen na Sonko jiitu. mérité na ko. non mérité na ko parce que la ñuy wax la vérité des chiffres tey Thierno Bocoum mënul jiite Sonko dañu waxante dëgg. waaye léegi lu mu bëgg lu mu bëgg bu bu ñuy décider Thierno Bocoum lu mu bëgg bu ñuy décider Sonko ne Thierno bookum na décider mais loolu man ñun duñ ko nangu. kon yow jàpp nga ne Sonko ak kalifa Sall war na ñoo mën a décider. mais war nañu ak PUR war nañu mun a décider c'est-à-dire que bu bu mu nekk dictature mais su nekkul dictature rek mun nañu pour affaire bi pour aller pour résumer pour pour pour pour mettre fin au régime de Macky Sall li mu gën a gaawee mun nañu yaakaar généraux yi ne leen jiitu leen seen décision baax na. diili même guerre da ngeen dem ba ba benn moment ci guerre bi xale bi méttee général mooy woote ne def leen def leen ni du laaj kenn. ba d' accord mais yéen seen coalition bi tamit euh, Yewwi Askan Wi est-ce que du coalition gars yi pour pour pour fayantoo coalition revanchard euh, coalition jéppi yi coalition bëgg fee jëlee Macky est-ce que du loolu moo tax kese moo leen moo leen moo tax ngeen teg coalition bi. non non non non. man non man nag kaay wax la dama am qualité yu ma gis ci xalifa Sall. Euh, bon Sonko xale la euh, PUR aussi euh, parti boo xam ne si diine la lalu. bu organisé la waaw bu organisé lalu si diine euh, tey ay bamba ji nitu diine la ñu Maba Guirassy yi homme d'état la donc Aïda Mbodj c'est une femme d'état. Aïda Mbodj sëñ Mansour Sy Djamil donc jili foofu amul viol nit ay nit yu violent amu fa sérieusement te man sax je dis que Macky su bëggee sortir par la grande porte moom ci boppam. war na bàyyi xel ci coalition boobu parce que coalition boobu moo fédéré aspiration du peuple sénégalais le changement se fera avec cette coalition donc ay fayantu yooyu ngay wax yaakaaruma ko ensuite Sonko mi ngeen di foog ne dafa violent man man je ne pense pas que c'est-à-dire que dañ ko dañ ko diaboliser alors que Sonko peut-être am na attitude à un moment événement mars yi mu am benn euh, mu am benn attitude frontale avec le régime et man bu doon man sax noonu laay def Mhm. parce que boo ma woowee ci ay affaire affaire ñàkk fayda mais di ma convoqué pour pour téye ma damay bañ même bu ne boo sama bakkan ma bàyyi sama bakkan sax mais dama koy def maanaam attitude guerrière la def mhm. te tamit c'est la première fois nga gis un chef de parti un chef de l'opposition ñu woo la ko ñu convoqué la bëgg la bëgg la bëgg bëgg la bëgg la euh, noot nga nga résister mais la résistance est un devoir d'accord léegi euh, mais am na yeneen am na yeneen coalition ci opposition bi coalition boo xam ne PDS ma si ci bokk gis-gis ma ngi ci CRD ak jot nag coalition boobu tamit euh, ñenn ñi euh, jàpp nañ ne mooy la grande coalition avec maître lay Wade yow lan moo ci sa xalaat. non man xam nga mënuma man mënuma jàpp ne sax loolu grande coalition la d'abord parce que mënuma jàpp sax coalition la ji li parce que bokk gis ak PDS même parti la Mamadou Diop Decroix ak PDS même parti la léegi yan parti fa nekk ay jot na ngay wax. loolu c'est pas une coalition xam nga nañu waxante dëgg gis nga dinaa la wax leen. CRD nag. waaw CRD d'accord mais mais mais dama la bëgg expliquer tey ñoom bu ñu bëggoon li gën a yomb dañ doon rejoindre coalition Yewwi Askan bi parce que ñoom coalition bu xaw ma lu ñu ko war a tuddee mais boobu mooy tur bi du du génn soppi coalition soppi. te logo logo bi aussi dégg naa soppi la. logo bi du génn mboq mi <laughs> ndax Ablaye Wade ci boppam moom dafay jàpp ne historiquement mhm. dafa am. vécu historique te vécu historique boobu ku ànd ak moom rek moom moom a danga ci war a topp tënku te te tey bu dee nit ki nee na moo tax gëwuma sax buggaan bokk foofu parce que buggaan bu ñëwee day perte bokk gëm bokk kii gëm sa bopp bi ndax nag moom daa gëm couleur bi gëm logo bi. te li muy di ko def moom moom moom loolu la fay fekk. <laughs> moom te moom loolu la def. te loolu lay fekk ci Ablaye Wade <laughs> lii daw la yaram jëli. waaw mais loolu doy na waar. mais kon yow dafa daw euh, yaram sax. mais coalition Ablaye Wade boobu si est euh, jox xaaral defal analyse boobu nga xam ne mooy final ci coalition Ablaye Wade bi jiili armée armée tey Sénégal bu amul président de la République bu ñu ne woon Macky Sall mooy président bi ak gouvernement bi ñu ngi toog Doha Sénégal réew bi jiili réew mi dina mën a dox. jiili armée tey Paris Saint-Germain. Mhm. ah dama lay jox exemple yu pour xale yi sax xale yu ndaw yi sax xam ko tey Paris Saint-Germain bu doon joué Lionel Messi itam toog kaw tribune yi Neymar toog kaw tribune yi <laughs> Paris ndax Paris dina mën a gagné hmm. noonu ñuy wax di dëkk tey le PDS est décapité Ablaye Wade n'est plus en en c'est-à-dire que y une réalité qui n'existe plus au PDS dafa am réalité boo xam ne amatu fa mooy réalité un parti fort boo xam ne euh, il est au cœur des des préoccupations du peuple sénégalais tey Ablaye Wade xamul sax lu xew Sénégal dañ koy wax lu ma lu fi xew dañ koy informé te Ablaye Wade aussi mag la même boo ko waxoon lii tey tey benn affaire fàtte na ko Karim Wade est coupé Sénégal dafa maanaam euh, dafay kii nu mu tuddee ci délégué on ne gère pas. mais est-ce mais est-ce que am na ambition ba tey ci Sénégal. non loolu nag laa xalaat sax man loolu moom ànd naa ci parce que. non man non non dama laaj gisee dama laaj est-ce que am Karim Wade am na ambition. <laughs> mais ji li boo posé question boobu rek parce que sa xel si li nga question li dem sa xel moo dem si xel ñu bëri ah. cest que man à mon avis même tey liir naa benn journal mu ne Karim bu ñibbisee si élection locale yi mais xali mais Karim du ñibbisi jii li man yàgg naa leen wax bi mu fi waxee Karim ne sera pas candidat mais dañoo jël journaux yi titré Ablaye Guissé nee na Karim ne sera pas candidat FPDR ñu dàq ma. mais man vérité rek laay wax dëgg laay wax Karim tey jii li ko Macky sàll teg tant que Macky Sall génn jëlul génnul Sénégal bii Karim Wade Sénégal. mais yéen. Euh, est-ce que dégg wax. dégg naa bu baax li nga dama ne la. tant que Macky mu ngi Sénégal. Mhm. Karim Wade du dugg Sénégal. d'accord loolu mooy ku loolu mooy clause yi. d'accord léegi euh, yow daal jàpp ngeen ne. Mhm. beneen coalition bee nga xam ne ci la ab Ablaye Wade ak Bokk Gis-Gis nekk jàpp nga ne yéen euh, mënu leen a yàqal li ngeen bëgg a def. non mënuñu yàqal ba pare non seulement munuñu yàqal mais euh, daf dina am reconfiguration politique bu garaaw parce que parti yi nga doon dégg ay ñoom LD ay da ay LD wala PIT xam nga dañoo ne élection nga leen di gis ñu am ay deux pour cent ay trois pour cent foofu lañ jëm c'est-à-dire que dafa am partie yoo xam ne buñ attitude bi ñu taxaw. bu ñu demee élection 2012 euh, 2000 euh, le 23 jan le 23 janvier élection locale yi suñu fa demee ba pare yow jii da danga moo invité waat fii ne ma laay gise li nga waxoon am na. mais Guissé euh, Ousmane Sonko dafa am ñuy wax ne moom daf ne woon anti système la ba pare ànd ak waa système bi loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. waaw mais mais mais xam nga gis nga al politique du du alxuraan c'est pas le courant en politique. man loolu laa gëm man ab Guissé mais soo waxee na ko war a jëfee. non da nga war a jëfee mais maanaam dama bañ ñu jël politique def ko alxuraan maanaam ku rey nit ñu rey la su la loolu en politique la kon Macky Sall duñ jiite Senghor duñ jiite Abdou Diouf ñu jiite. Ablaye duñ jiite Ablaye duñ jiite Ablaye de fii la wax ne soppi ñu jël pouvoir bi mu dem moo jiboka liggéey ak moom ji ànd ak Moustapha Niasse def ko premier ministre. ku la waxoon ne Abdoulaye dina def Moustapha Niasse premier ministre loolu da nga ko gëm sa àdduna Senghor Senghor moom moo njëkk indi euh, yeewi as kii tekki yeewi yeewi askan bi mais Senghor ko njëkk a da mooy dog bu mu njaam bi di liggéey ak ñoo xam ne bokkuñu vision jokkuñu idéologie mais jii lii Sénégal xam nga lu am solo ñun ñëpp ay sénégalais lañu drapeau carte d'identité bi ñu yore vert jaune rouge ci nekk alliance ak contre alliance gis nga yooyu yëpp xam nga lan la. mooy stratégie de jeu rek la man ci football euh, tey Neymar war na football nga dugal ko suba warul football nga génne ko gannaaw suba Neymar dem na jóge na Paris dem na Barça parce que footballu Barça moo ko doy wala Bar Barça la gis ne avenir fa la nekk mais mais c'est tellement simple jii li yéen journalistes yi tey da ngay nekk fi suba nga nekk fële jii li non nañu waxante dëgg pourquoi ñu bëgg jël politique yi politique yi figé leen man du affaire parce que dama gëm ne Sénégal amul idéologie amul idéologie politique Sénégal problème euh, social la moo fi am. mais gis nga ne Sonko daal taxawaay bi mu amoon ak vision bi mu amoon Sénégal ba léegi nii. renié wu non c'est-à-dire que benn euh, Sonko lenn loo xam ne du changé si Sonko mooy jële fii nguuru Macky Sall te loolu bës bu changé man de bés bu changé ma bàyyi ma bàyyi ànd ak moom parce que loolu rek moo loolu rek moo moo stable loolu rek moo immuable. loolu rek moo constant loo xam ne kenn waru ko dindi. mooy lan mooy jëlee fi Macky ak nguuram ak régime am bi te Sonko mu ngi ciy dox suba ngoon mais Sonko ànd naag jiileeg ànd naag si Ahmed Khalifa Niass ak wala toog naag euh, catholique beeg wala musulman bi mais loolu amul sens même Sonko bu toogee télé na man du ma ànd ak système. wax moom salaana loolu moom la concerne parce que bu bu tant terrain baa ngi dem am ñuy yéeg am ñuy wàcc mmh. am déet mmh. terrain bi buy dem dana am ñu yëg am ñu wàcc da nga jàpp ne bala muy changer système bi force mu jële fi système bi te jële fi système bi mooy ànd ki nit mais mais mais est-ce que xam nga ne changement système bokk nga ñëw nga euh, nga infiltrer le système xam nga am na lu wax naan euh, révolution interne ak révolution externe révolution interne mooy nga ñëw fekk système bu fi nekk nga dugg ci biir système bi xamante gars yi waxtaan ak ñoom changer changer leen am na révolution boobu nag la Sonko wax ne du ko boobu buggul boobu am révolution externe mooy taaxaw ci biti di xeex ak ñoom ba rey leen ba daan leen mais boo demee ba gis ne boobu mënut ta nekk da nga utiliser deuxième bi ce que Abdou Diouf Ablaye Wade a utilisé avec avec euh, avec Abdou Diouf Ablaye Wade dafa xeex ak Abdou Diouf ba sonn mënu ko gañee mu jéggi mu ne dugg gouvernement infiltré ko infiltré ko mais ay ministre mag ak yow yëpp mu jéggi xam ne Ablaye liggéey kat la ñoo ñu si bëri indi am apport bi ñu ko indil mais loolu tey mu am ci expérience tey bu fa newuloon bu duggul woon ci système boobu Ablaye Wade du xam système bi mais pourtant Ablaye Wade bi mu faloo système boobu la jëlaat. mais kon yow da Sonko bu Sonko bu taxawee ci bitti du comprendre lépp lépp ci système bi mais bu duggee ba ci biir système bi ñu newoon système bi dina xam nag ban euh, yan stratégie lay teg ngir mën a combattre système bi. système bi xam nga tey Sonko su su su ñëwee fréquente Ahmed xalifa Niass dama lay jox exemple. Mhm. Euh, wala dem. wuy ji euh, dem président Macky Sall woo ko pale Covid bi mu dem dugg ci biir waxtaan ak Macky xam nga déjà am na expérience. toog nag Macky. toog ak Khalifa Sall fii. waaw Macky wax na mu dégg. même bu dee une la il est Sonko est même bu dee une la toog ak Macky. day day jàng ci Macky. dina am lu mu xam jàng ci Macky. sa adversaire balaa nga ko mën a gagné nga xam ko Balla Gaye dafa ne yëkk ni sama combat ma yow une minute lay am parce que dama la xam. te xamoo ma te xamoo ma. d' accord léegi euh, Ablaye Mamadou Guissé euh, dafa gis tamit comme par exemple li ñuy reproché Sonko. Mm. coalition ñoom Ablaye Wade bi te ñoom Thierno Alassane Sall nekk si keroog rek maa ngi dégg benn journaliste euh, di ko expliqué Thierno Alassane Sall livre boobu mu bind ci mbirum pétrole beeg yooyu yàq na si musiba ak mbelengaan ah. Abdoulaye Wade. <laughs> te Abdoul Abdoul mbey aussi Abdoul Mbaye aussi motion de censure bi PDS lancé woon ci affaire xaalisu Hissène Habré bi ba mu nekk premier ministre bu Sénégal. Mm-hmm. gis ngeen ko assemblée boobu waa PDS ñoo woon la leen Abdoul Mbaye wax assemblée gis nga ko. tey Thierno Alassane Sall moom ak Abdoul Mbaye ñoo ngi rejoindre Abdoulaye Wade mu mel ni incohérence bi moom ma ngi mel tulleeg man lay kenn ku nekk daal waaw xam nga jili kon yow gis nga jili yow tu es un excellent analyste parce que damay suivre say chronique mais li nga wax mooy am li nga wax est-ce que xam nga loolu xam nga du mel maanaam ku nga nekk jullit nga nga nga tubbi nekk catholique moom la Abdoul mbay Thierno Alassane Sall def ak Ablaye Wade mm-hmm. xam nga Sonko sax comprendre xale la Sonko xamagul day dem yoon la nekk mais ñoo xam ne dañoo dem ba yegg ëlbatiku ne sama diine bi ma ne woon bàyyi naa diine bi moom la bo mais boobu boobu dafa garaaw ji li d'accord boobu boobu boobu gis nga boobu analyste politique yëpp mais loolu la ñu waroon def débat pourquoi débattre ñu ci loolu d'accord léegi euh, gis est-ce que euh, rivalité wala duyalité dafa am entre euh, Sonko et Bougane non mais mais mais peut-être Bougane def Sonko rival. mais Sonko. deful du non du non Sonko du nawleem parce que Sonko il a il a une association fulgurante euh, Sonko c'est c'est le choix du peuple sénégalais c'est l'incarnation de l'opposition sénégalaise radicale pure et dure. donc Sonko munul nekk si mënul bokk mais yow bu la neex sax yow tey jii nga songu Sonko wala nga songu nga songu. Euh, Macky Sall su la neexee. taxaw di ko di ko saaga di ko xas. mais l' essentiel que mooy Macky wala Sonko ñoom nañu xam position bi ñu nekk Macky sàll dafa war a xam ne président de la République même tey bu dee chef de parti la soo ko attaqué war na xam ne ni moom on est en démocratie moom Sonko aussi loolu la war a comprendre war na comprendre man Sonko peut-être euh, li ma jiitu nii am na neexul. tey c'est le cas de Bokum Bokum bu waxee rek tu comprends nettement que Sonko moo ko gêné mais loolu loolu one est politique lañ ko mës a fekk dafa am ñoo xam ne dañoo am problème gis nga tant que égo yooyu teguñu ko ci suuf bu la bu bu la Thierno Bokum waxee dafa bëgg Macky sàll jóge fi man pour man noo buggul Macky jóge fi Bougane su ne dafa bëgg Macky sàll jóge fi mu am attitude bi di viser Sonko viser xalifa Sall viser keneen mais je te dis que parce que ils ne sont pas des opposants opposant du attaqué moromu opposant am. d'accord